ñu xamé ko nonu gaay awma aw ennemi nit ñi na dañuy fokk ne bo waxé dëgg ba nga feñal dëgg manam wala nga wax li nga japp ne moy moy sa xalaatu bop parce que ni ko nekk am nga droit wax li nga xalaat sa sa propre analyse bop que boko jëmele ci nit rek ci ci ci entité entité bu muy bu muy incarner mu ne noo kii def ma bañ gis nga sa entité bi nga incarner man lay attaquer du mu attaqué nit ki nit ki euh attaqué wu ma ko. li muy incarné lay attaqué. so ngir yàlla war a ñu am euh, esprit de dépassement parfois di xool ne a ah, kii waxul ak man de mais li may poste bi ma yor lay attaqué bu ko defee rek Sénégal dina dox. changement bu ñu bëgg pour am ko ak euh, premier ministre am ko lépp dina tegu ci yoon bi. boo nekkee ministre ñu ñu attaqué la nga bañ a jàpp ne yow personne la ñuy attaqué boo nekkee député kasaalika boo nekkee un fonctionnaire de l' nga jàppee ko noonu. ku ci nek bu jappé non bopom rek bañ rek naan ni dañ ma bañ dañ ma teg bët dañ ma soxoré dañ ma iñané lima yalla defal fi ku ci nek suñu yalla ngi lay sutural donc lool la après lool bu wéso gaay président jomay ñun ñi nga xamné dañu nek